asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo ngi kilifa yi teew ñu yëkkati suñu nuyu di ko teg seeni loxo ñu tegal nañ si loxo Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullahu wa raahu di joxe kàddu yu néew yoo xam ne ndigal rek ñu def ko waaye moom li fi jàll yóbbaale na li waroon wax lépp salaatul jumaati nag mooy li nga xam ne baat yi ñuy wax ci la ñu koy jëmale sëriñ Mbakke Abdourahmaan wax na ko léegi jumaam fukki nit ak ñaar ak ilimaan ci lay fasoo waaw ah, ak lu ca dolli ko kon nag mel na ni ñi sëñ bi jox ndigal ñu nekk ci biir jumaa ji amee liggéey bi seenu bu lim jégg na loolu bu baax a baax a baax fukki ak ñaar yi tax jumaa fasu ànd ak ilimaan bi lu ko ëpp am na fa kon nag ñuy sëñ bi di xamle ne kenn ku nekk fu la waxtu wi fekk mën nga ko julli sa tusbaar di xamal mbokk julli yëpp rek ne leen nii ko sëñ bi waxee incha allahu taala fa seet nañ ko noo dunde noonu ngir lii xew ci àddina bépp ñëpp di ko dund sëñ bi di ko dund ñu ko ñëpp di dund wala sax mu ëpp leen ci ndax mu bokk jawwati ñëpp kon tax na ngir wattonte ak sàmmonte ak ni ko jamono laaje mu wax ne dafa bëgg ñi nga xam ne ñoo liggéey ci jumaa ji rek ñu nekk fa di taxawal liggéey ba ba jamono yi di weesu incha allahu taala kon waxtu julli jot dana noddu waaye ku dégg noddu gi tam na nga xam ni am nga ndigal julli fa sa kër loolu mooy ndigal li bàyyi ci sëriñ bi kon ñu ngi eh, fàttali ak di yëgal ñi nga xam ne dañoo baaxoon di tànn di julli seen waxtu si jumaa ñoo xam ne loolu mooy ndigal li bàyyi ko ci sëriñ bi mooy ndigal li te xam te moo kon ñu ngi sàkku ñëpp ñu tënku ci xam ne incha allahu taala parce que nañ te mooy di jullee ku nekk nodd gi moom danañ koy dégg incha allahu taala waaye su boobaa itam dañoo wax ku nekk rek mu jullee fa mu nekk incha allah aju mu jëkk yëpp dañ ko nodd waaye su boobaa itam nañu xam ne julli gi moom lu génn ci biti ndax julli ajuma kenn ko toll la dañu nodd rek ñu nekk ci biir rek julli te suñu dafa xam ne ñu fay liggéey rek doy na ñu fay liggéey rek ñoo julli ñoo fay julli waxtu juróom ñoo fay julli tam ajuma yi ñi si ñëpp am na ndigalu toog ca kër ya ba jamono dal fa mu nekkoon